saison bu particulière la jaraaf am parce que démarré nañ championnat bi am nañ championnat bi avec neuf défaites loo xam ne donc jaraaf daanu ko woon am ñu ñëw ci neuf défaites yi yëpp yi nga xam ne moom am nañ ko amul benn boo xam ne am na ci violence ci neuf defet yi trois Iba Mar Diop lañ ko perdre muy génération foot muy dakaar sacré kër muy douane mais amul benn match bu si am incident kon ñun dañuy accepter ñu gagné ñu waaye am na équipe yoo xam ne duñ accepter jaraaf gagné leen et loolu ça pose problème loolu ça pose problème donc incident yi am yëpp mooy match yi nga xam ne donc jaraaf daf ko waroon gañe wax naa fi sànq ni rek waaye ñëw na fi àllale ñu mën ko 1-0 ba à la 93e minute géejewaay égalisé. jubilé foo génn dem seen yoon ñun ñi dem géejewaay. di fa jouer en fait donc demi-finale Coupe du Sénégal avec une forte mobilisation on jour dans un stade boo xam ne normalement kenn waru foon sax jouer ñu jouer fa mu am ay incidents à la fin du match. incidents yi lan moo ko indi jaraaf moo am penalty après ñu ne penalty bi en fait kenn du ko dóor match bi yam foofu bon on nous a donné match match gagné mais ça c'était la moindre des choses. <laughs> parce que le règlement bi loolu la wax bu amee donc <laughs> bu amee donc euh, interruption du match équipe euh, équipe bi nga xam mooy responsable interruption match donc il perd mais malheureusement on nous fait une amende aussi donc de 3 millions pour des pratiques occultes man dama ne 3 millions moom pour pratique occulte bu ñu ko fiy joxe kon dina am équipe yoo xam ne fi nañu amende 100 millions parce que tout ça pour vous dire que aujourd'hui nous nous avons toujours été ñun on a toujours été des parce que ñun mësuñu gis kenn busu jaraaf donc ñu toj ko mais xoolal suñu bus mu ngi nii ba léegi suba la ñuy dem pour réparer vitres yi y trois vitres yoo xam ne suñu dem ñu sànni benn benn toj mais ñun kenn mënul déclarer ni jaraaf toj na sa bus ren pourquoi il est important que tey ñuy wax ak nit ñi parce que am na ñoo xam ne peut-être duñ topp jaraaf si yenn match yi dañuy dégg naan jaraaf léegi dañu violent mais lool loolu c'est pas une tradition au du jaraaf ñun duñu ko encourager ko accepter ñi toog fii autour de cette table ak nos anciens là du ñu accepté tey jii mu am fi benn dirigeant buy encouragé loolu tey bu Youssou Dial doon encouragé loolu per As moo may woo wala mooy woo Cheikh Seck ne eh Youssou Dial mi wartu fi nekk kii sa place c'est pas au niveau du Jaraaf le Jaraaf c'est comme ça que ça fonctionne donc dañuy waat gis ngeen tam aussi li fi am suñ dernier match contre Stade de Mbour c'était un match âprement disputé on a joué mu neex mu jeex on a communié et puis chaque équipe donc ñibbi mais loolu moom mooy football. am na lu Ndofène wax ni jaraaf lu fi am rek amoon na fi Amadou Diop booy Bandé am na benn année moo xam ne entraîneur bi dafa démissionné moom moo jël donc le moo jël le jël le moom ak donc Dambodj ñu dem ñu mujj dem dem final c'est que aujourd'hui quand l'entraîneur effectivement a pris la décision en fait donc de partir comme je euh, je vais me répéter rek on se retrouve tous autour d'une ñu discuter ñu ne léegi entraîneur bi dem na léegi nu ñuy def am na un match de championnat bu doon ñëw ak un match de coupe du Sénégal à Kaffrine on se dit que non on prend pas en fait donc de décision pour le moment passons ces deux matchs bu ñu jàllee deux matchs yi après ñu évaluer yàlla def donc match championnat bi ñu match nul un bon match nul a Iba Mar Diop je plus de l' ñu dem Kaffrine donc ñu qualifié bi ñu dem Kaffrine ñi ñii ñoo ànd ak ak suñu mag donc Ndofène ak As ak ñoom Cissé ñun ñëpp ñu def opération commando foofu la aventure coupe du Sénégal bi sax commencé ñu dem foofu Kaffrine gagné fa donc 2-0 après ñu ne nañu bàyyi staff bi mu kon à la fin de la saison on fera une évaluation saison bi nag jeexagul des na benn match à la fin la saison dinañ def évaluation mais encore une fois rek pour wan encore on va se répéter mais Jaraaf dafa am mode de fonctionnement am na mode de fonctionnement duñ jël mukk des décisions donc à chaud et les décisions sont concertées bu amee problème rek nekkoon na ci situation boobu entraîneur dem on se réunit et c'est des décisions qui sont prises par le bureau et que ñu ñu entéré ko et am na lu parfois lu Ndofène di wax du am solo au-delà des entraîneurs Jaraaf ses dirigeants participent beaucoup aux résultats de bu Jaraaf bu ñu booloowee ñu nekk dans une situation difficile ah en général rek bu ñu booloo nekk benn rek yàlla daf ñuy may ndam te loolu moom moo ñu topp ba léegi. ñu waat suñu mbokk stade de Mbour yi. fair fair play ils ont fait preuve de fair play keroog seen finale contre Teungueth FC. ñun tam dañ leen di ñaan ñu continuer si voie boobu te ñun tam si dañ leen ñëw fekk ci voie fair play boobu parce que tey jii nag Euh, Ndof mi ngi koy wax léegi sànq ñun ñooy les premiers à jouer foofu waaye tam aussi ñun waruñu nekk lee premiers à yàq foofu il faut que aussi qu'on donne une bonne image di football sénégalais tey jii président gëj na ñëw ci ay finale coupe du Sénégal. depuis 32 ans bu ñu amee ba njiitu réew léegi di wax ni dafay dellu si waat ci football donc euh, di ñëw di fekkee ay finale coupe du Sénégal ñun bu ñu ko ko regretté loo wala bu ñu def en sorte que tey jii beneen président ñëw ci finale coupe du Sénégal. donc ñun ak Stade de Mbour dañu am responsabilité bu rëy ci final bi responsabilité historique tey dañu war a def en sorte que ñu perpétuer le fait que président ñëw di fekkee final coupe du Sénégal parce que président finalam la moo ko war a donc ñëw di ko présider ak fu football bi Sénégal bi toll ak fi football Sénégal toll ak fu fédération donc yóbbu football football Sénégal foofu ñun dañoo war a continuer di wane donc une belle image en fait donc du, du football te incha allah en tout cas au niveau du Jaraaf ñun de ce qu'on peut vous en tant que dirigeant on fera en sorte que nos nos ce jour-là montrent une belle image donc du du Jaraaf